encore une fois maa ngi remercier l'ensemble des enseignants du département de Kër Massar l'ensemble l'ensemble bàyyiwuma kenn ndax liggéey bi ngeen def bi élection locale yi weesu fu ma dem dama koy fàttali te ñëpp département bi xam nañ ko responsable bi xam nañ maa ngi leen di remercier encore seen taxawaay ak seen abnégation li ñu fi dajale tey enseignant wu département wu Kër Massar MENER le mouvement national des enseignants républicains de Kër Massar ñoo fi daje mais ginnaaw balaa boobu moo euh, nuyu ki nga xam ne moom moo jiite le MENER le mouvement national des enseignants républicains de di parti de l'APR muy suñu sœur si soxo Khouma ñu ngi koy sant di ko remercier tey nag li ñu fi dajale mooy le MENER Kër Massar département de Kër Massar ñoo fi daje pour wan l'opinion que ñoom aussi vraiment euh, pare nañ capable nañ def ay action sociale ginnaaw bi ñu jógee ci koor gi ñu xam ne euh, solidarité dafa am solo si ñu dégager benn enveloppe jënd ay denrée lu ci mel ni soble lu ci mel ni pombiteer lu ci mel ni foobar ak yooyu maanaam yi ngi xam ne ñooy dem ci affaire yi saf-safal yi ngir vraiment jàppale ko enseignant wu département bi donc loolu aussi ñu leen ci remercier di leen di leen di leen gërëm parce que dañu xam ne koor dafa metti ñu ngi jublu ci korité ah, di ñaan yàlla aussi ñu dugg ci ak jàmm dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin journée tey bi aussi prétexte la tamit pour ñu rendre suñuy pare suñuy parrainage parce que enseignants yi ku ci nekk dañ la joxoon benn quota nga dem collecter ji ay parrainage vraiment def liggéey bu am solo indi ko donc on s'était fixé benn quota wu mille parrainages je pense que euh, li ñu fi collecté gul ci ay parrainage presque ëpp na 1000 parrainages donc ma di la ñaan ngeen tàgg seen bopp donc je pense que loolu la woon na ah. loolu mooy suñu ndaje bi en français